Macky Sall daanaka neexoowuñu 2013 ba léegi loole nag daal di waral docteur Abdourahmane Diouf daal di andi njàpp ndalam ci beneen candidat bi nga xamante ne nag jàpp na ni am na politique bu bokkul ak bu gouvernement bu fi nekk. candidat bi ñuy wax Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolu loolu mooy choix coalition Abdourahmane 2024 cela résulte d'un processus transparent parce que ñun noonu la ñuy liggéeyee. boobu tànneef nag wàllum programme ci la sukkandikoo bu ñu sukkandikoo nag ci candidat bi nga xamante ni nag dañ ko daal di téye ci parrainage yi leaderu parti awale moom nag ba léegi loole Dakar naqari. dañoo soppi ab informaticien def ko mu nekk ab juriste juriste yi nga xam ne ñoom ñoo nekkaat ay informaticien waaye itam résultat bi maanaam la mu jur mooy dañoo am système bu nga xam ne contrôle parrainage yu catastrophique maanaam yu bon te ñun tamit ca la ñu bokk. mu yaakaar ni président de la république Macky Sall dina amal élection yi ci bés biñ ko jàpp bu dul loolu rek yaakaar na nii ab crise mënees na fee am. on va vers une élection le 24 mars maa ngi ñaan yàlla day di ñaan Macky ak ñu mu àndal bu ñu fi indilaat beneen crise nañu dem ngir yàlla jàmm ci élection yi le 24 mars. Abdourahmane Diouf daal di porox ndoll ci jàkkaarloo gi mu doon amal ak taskatu xabaar yi ngir daal di fësal ni bokkul benn yoon ci candidat yi nga xamante ni nag ñoo jagleeloon bataaxal président de la république Macky Sall ngir élection yi waroon am ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ñu daal di koy dàq.